asalaamaaleykum mbokk téléspectateur Equivox TV ñu ngi leen di nuyu tey nag uh, bu ngeen gisee rek uh, fi ma taxaw ngeen xam ne ñu ngi ci uh, banlieue bu dakaar fii nag mooy caaro Thiaroye Minam diggante Thiaroye Minam sax laay wax ak Pikine li ñu fi indi tey nag lenn la mooy rek li nga xam ne moo di couvre-feu bi daf leen a yàqal lu bëree bëri ba ci jaaykat yi ak ñi nga xam ne sax nag ci heure couvre-feu boobu rek lañ doon profité pour génn rek ngir sàkk luñ lekk fi mu nekk nii nag xiif bi daf leen a sonal torop torop moo waral nag ñu wàcc fii rek ngir waxtaan ak yéen kon laaj Hadj danga topp rek ma daal di laaj askan wi nu ñuy dundee instant bi voilà El bu ko defee rek ñu daal di dugg ci kër gi fii nii rek ma nga xam ne fekk naa leen fii lii gooy hmm? saaf waaw ah ñu ngi jàpp nank nànk rek feebar bi dama metti na moom waaw si ñëpp kay metti na suñu metti na suñu dëkkër yi lii dañ daan xëy di ko jaay waaye fi mu toll nii moom doxatul waaw. ak seddaay bi nii waaye fi mu ne lépp taxaw na. waaw def maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu population Guédiawaye bi yëpp di leen sant di leen gërëm waaw mbas mi moom wax dëgg yàlla laal nañu bu baax ndax dañ doon jaay di jaay añ di jaay reer léegi fi mu toll nii gisatuñu ku ñu jaay gisatuñu kenn koo xamante ni mi ngi ñëwul mën a jënd gis nga sama mag ji di jaay gobe saf ni daan jaay gobe gu bari di ko saaf di ko jaay waaye instant bi nii gisatut ki ñëw bu mu jaay waaw léegi mbas mi daal wax dëgg yàlla laal nañu bu baax metti na ñi ñaan président Macky Sall mu dimbali nag askanu Sénégal ndax ñun amuñu lu dul ñàkk jariñu kon ñun dañ ñoo war a jàppale bu baax ndax bu ñu liggéeyul dinañ dem sàcc mbala ñu dem defi la naka sudul noonu comme nag ñun dañ ñoo war a jàppale te dindi couvre-feu bi couvre-feu bi ban njariñ la am ci dëkk bi 19 heures 20 heures nit ñi fat di dem tëddi kon ban njariñ la am amul benn njariñ amul benn sens mu bàyyi ñu liggéey di ci li ci fortaatu moo ëpp sens foofu waaw loolu laa amoon ci daal lu may wax. awa ah comme bi wàññeeku lool ñu toog nii xam nga njaboot gi toog wër la nan ngay def ba gérer ñi nga xam ne rek ñoo di tout tànk yi. a ah, metti rek ma war leen a mën a dundal war leen a mën a jox. maa ngi nii aw ma lu ma leen jox aw ma lu ma leen kii aw ma leen lu ma jàppandi fi mu toll nii li ma doon liggéey yëpp teew na sama mag jee sama jabaru frère bee mu ngi nii jëkkëram nekk fi njabootam gi mu wacc ko fi ah. ku leen ku leen di jox lekk ku leen di jox naan man fi mu toll nii sësuma fenn wéeruma fenn kon ñun as fi mu toll daal sonn nañ torop dëgg yàlla sonn nañ boo fa sonn yam nañu dimbali askan wi te bàyyi couvre-feu bi xale yu góor yi dem dóori waar xale yu jigéen yi dem dóori waar. waaw moom mu yàq couvre gi daal li mu yàq mooy ñiy jaay moom jaral la tuñu jaral la tuñu ndax couvre gi dafay dafay teel xam nga bu fekkee ne la ne marché bi cinq heures nañ ko nañ ko nañ ko tëj te yow nga daan dem ba dix ci guddi la nga daan am dootoo ko am dootoo ko am. dootoo ko am te bu fekkee ne nag amatoo la nga daan gaje amatoo ko day dem ba day day day day dem ba dalay laal ci sa wàllu dundin sa wàllu dundu njaboot dala ci laal dootoo am la nga leen daan jariñ day dem ba ku ci feebar sax doo ko mën a dem faj te ñoom buur duñ la fajal te doom de soo amulee xaalis doo faju waaw soo amoo xaalis nga war ko faj mënoo ko faj fu mu jëm day dee ba amul xaalis day dee parce que ñoom duñ la ko fajal hôpital boo dugg boo amul loo fayee dañ dañ dañ demal kaa caare yóbbu fa malaat nga xool boo amul xaar duñ ko laal. mu mel ni li ngeen di dund instant yi moo gën a métti li nga xam ne moo di feebar corona bi. moo gën a métti corona bi kay. corona bi moom buñ la boo xasee feebar dem hôpital ci sa sa sol dañ lay faj nga dund baa nga dee rek waaye nag bu fekkee ne dañ koy aar di ko aar ba nga xam ne yow dootoo am am benn koom booy gañe ci li nga doon jënd ak jaay. amatoo ca lu sa njaboot lekk amatoo ca loo xam ne bu doom ji feebaree wala jabar ji nga faj ko waaye kon kon léegi aar bi mu ngay ëpp man li ma leen ma di wax mooy couvre-feu bi nañ nañ ko bàyyi mbala buñ ko mënut a bu fekkee xool leen nag mënuñu koo bàyyi nañu jël seen takk der yi gendarme yi ak police yi ñu dugg ci biir dëkk bi ñu tas leen ñu dugg ci biir dëkk bi di aar ñi ñi ñi ñi liggéey àll ñuy jël naka jaay pour pour bañ di gaañ leen jël seen xaalis te ñu ba continuer continuer seen noonu bàyyi bàyyi ku fi moom ñu mën a am ñu mën am am am la ñu dundee ko seen fajum feebar hmm? wàññi loolu wàññiwul dara. bi ah li mu maanaam feebar bi lañuy ñuy défendre te feebar bi moom kenn wérantewul ni am na waaye nag feeñ ne ci noonu itam ndax liggéey bi moom wax dëgg yàlla. suñu liggéey yëpp yi ci ëpp yàqu na mënatuñoo liggéey te néew di doole lañ ñi ci bari ñi ci bari ñu ngi yoruñu kër yor nañu kër mais dépasse mënatuñu ko am di fay luyaas metti na trop li gouvernement bi santaane nag weddi ko wérante wuñ ci xam nañ ni lu am la waaye nag dañoo néew doole ku ñu jàppale dimbali tam mu baax ci ñoom waaw loolu daal bu ñu sañan ñu jëf ko képp koo xam ne masque yi ñuy santaane tam masque yi bu dul feebar bi itam day défendre poussière bii ñuy dugg ak ñoom seen yooyu yëpp baax na ci waaw loolu lépp baax na ci waaye daal liy wax ji daal mooy fi mu ne daal ko bu nu waxee dëgg te wax dëgg mooy sonn nañu sonn nañu ay boroomi kër lañu di fay luyaas ab dépasse ñenn ñi yoruñu ko ñenn ñi am nañu ko ku yorub dépasse nag bu la neexee ni dëkk bi méttiwul deful neen mais ñi nga xam ne yoruñu dépasse mu yoruñu leen tey fay luyaas yoru njaboot xam nañ ni dëkk bi metti na waaw ku ñu dimbali daal ñu sant waaw. bu taxawee koom bi dina wàññeeku naka nga koy dundee ak njaboot ah métti rek liggéey bu taxaw koom bi wàññeeku métti rek waaw loolu rek lay def ci nun wax dëgg yàlla dëgg yàlla bu nu waxantee dëgg xam nañ ni moom sonn nañ dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg président. war nañoo jàppale dimbali ñu waaw war nañoo jàppale dimbali ñu feebar bi wérante wuñ ni am na wérante wuñu ko waaw kon nag buñ ci nekkee ñuy santaane nañu daw fanaani seeni kër que neuf heures pile ñëpp daw dugg seeni kër ah ñenn ñi ci des guddi lañ doon war a di liggéey mënatuñoo liggéey guddi métti na tey yor seenu njaboot ñenn ñi dañuy fay luwaas ñi ci des ah, mënatuñoo liggéey waaw kon nañ nu jàppale nañ ñu jàppale seetal nu beneen kii bu ñu mën a mën a jafandiku ba man cee dund ak suñu njaboot gi lu nu jafandu ba mën a dund ak suñu njaboot gi nañ ñu ci jàppale waaw sonn nañu trop wax dëgg yàlla bu nu waxantee dëgg waaw ay mag lañ nag mais da ñuy wax rek nañ wax dëgg waaw réew mi nun ñëpp a ko bokk ñëpp ko bokk nañ seet ni nga xam ni néew ji doole yi dañ leen mën a dimbali ñu mën a liggéey loo xam ne dañu mën a jox seenu njaboot waaw bu ñu ko defee du am benn problème mais nag kii néew doole di fay luyaas yorul lu mu yóbbu njabootam boo bëggee woñ loxoom dina métti ci moom dina métti trop dina métti nañ ñu jàppale gouvernement bi nañ nu jàppale wérante wuñu li ñuy wax xëccoo wuñoo ñoom waaye nag boo yoree sa njaboot di leen teg yenn bu ñu teg yenn kii itam attanuñu ko mënuñoo dem bu yàggee dañuy mujj fippu te fippu baaxul nañ nu jàppale waaw bu mu ñëwee ba léegi na man su ma ba pare ay 4 heures laay génn léegi balaa ma génn tuuti rek laay jaay du ma am sax li may ma daal di fat dem daw ndax feebar lañu nit ku ne la eh, ngay aar sa bopp moo tax may daw. d'accord nga yor njaboot war leen a dundal naka ngay dundee situation bi fii ko boo jaayul doo am lu leen dundal. ah métti na moom suma ma amul kay xanaa ma dem lébi wala ñaar jox leen am na ñaar doom jigéen ak bu góor dañuy te chaque jour dama leen jafe joxe dépense ñu yóbbu école te sa yaay bi laa koy jëlee te jour bu mu jarul rek damay déranger waaw. léegi yow euh, Ndiaye moomu danga ko boole woon di fóot wala bi njaay mi arrêté ci nga commencé fóot bi. déedéet lii sama yére la sama yére laay fóot sama bopp laay fóot ak sama maam ak samay ñaari doom laay fóotal ni waaw sama maam laa nekkal fi amul dara suma ma toogee mu toog du baax. il faut ma jàpp si. de couvre-feu bi ni ñu yàqalee sax du ndànk waaye nag comme que noonu la àdduna bindoo chaque jour moom nga gis ay surprise dañ koy gëmee gëm gëmee yàlla suñu boroom rek ndaxte comme mosoon naa neex bu naqaree ñu gëm yàlla waaye couvre-feu bi ñun man surtout man man moom li ma yàqal bari na ndaxte daan naa jaay supp jaay rago jaay mbaxal jaay couscous jaay vermicelle jaay ginaar te léegi arrêté naa mbaxal arrêté naa supp te dafa ma daan génneel bénéfice waaw waa heure bi euh, sunu sunu sunu président wax rek waaw comme moom la fi yàlla teg nañ koo gëm rek te xam ne li mu wax ne comme mooy njiitu réew mi li wax ne moom la ñuy def moom la ñuy def heure bi ñuy wàcc rek la ñuy wàcc. ku ne ne boo arrêté bi ngay jaay. koom bi dina wàññeeku. léegi nag na nga koy dundee ak njaboot. ah waaye nooy def dañ day jël lañ dencoon rek di ko utiliser fi ñu toll nii rek mu métti ba bëgg a waaye nag. comme li ma la wax rek sant yàlla suñu borom rek ndax moom comme moo fi wàccee mbir mi nañ ko ñaan yàlla rek mu teggil ñu ko ci jàmm ak salaam ñu delluwaat suñu activité ñun ñëpp. lan ngay président. ah di ko gërëm di ko sant ndax man moom yàlla dafa def man moom mooy sama président. waaw waaye nag di ko ñaan xam ne bu ñu mënoon a yokkal même bu dee une de temps ah, ñu ñu gën cee gis suñu bopp gën cee gis suñu bopp rek loolu la rek. liggéeykat yëpp métti si liggéeykat yëpp waaye loo xam ne nag yàllaa ko fi moom nañ ñaan yàlla yàlla jëlewaat ko fi rek mbas fi yàlla indi la waaye metti na si jaaykat yi metti na si liggéeykat yëpp ndax ku waroon a jaay ba une heure du matin ngay jaay 9 heures loolu dafa metti si liggéeykat yi baaxul waaye nag yàlla nañu ko fi yàlla jële daal yàlla nañ si yàlla dimbali ba jële fi mbas mi daal mu dimbali ñu loolu rek laa koy dundee ak daan am euh, ay une heure du ñu koy am ay 9 heures kay xam nga ne loolu metti na soxna si léegi mënatuñoo liggéey ku daan jaay ay ñaar fukki junni ngay jaay ay 30 30 mille 40 mille loolu baaxul waaye ñoo ngi koy sante yàlla rek doolu sant yàlla xëytoo toog daal moo bon. couvre-feu bi daal yàqal nañu lu bari surtout ma feebar bi si jàng bi aussi tamit ndax ay vingt heures lañ lañ ñoo waroon a wàcci ay vingt et une heures waaye couvre-feu bi moo tax ba léegi dañuy teel a wàcc duñu pareegul suñu programme yu bëri Macky Sall fekkee mën na kaa yokk ba ba vingt ba vingt trois heures mu yokk ko ba vingt trois heures waaw loolu moo ñuy gënal waaw. waaw waaw yàqal nañu kay lu bëri bari ndax moom ñoo suñ moo waree yónni duñu xam ni ñuy def te faa ñu obligé jënd li ñu war a jënd jënd suñuy rey suñu yëpp balaa balaa gën a guddi. kon heure boobu ngeen doon jënd li ngeen lekk. waaw waaw yàqal nañu lu bëri kay. waaw maanaam couvre-feu bi lu mu ñuy yàqal mooy heure bi nit ñi di wàcc heure boobu nit ñi di ñëw di soxla li nga xamante ni ñun moom la ñuy wecceeku. muy wàllu reer ak wàllu jaay kafe ak yooyu da ku Dakar balaa ngaa agsi fii lu mu di nga def une heure de temps wala une heure de temps te daanaka par des fois na ñu yegsee sax nañu bëggoon a amee kafe gi sax duñ ko am parce ñu yàqal bari te suñu liggéey guddi la daan gën a dox ka gi daal ah, a fi wax dëgg yàlla ndax euh, ko amul ndey moom naam maam wax dëgg yàlla comme maama fi sasit nañu muñ rek xëy na bis dina mos a ñëw dina jeex waaye nag wax dëgg yàlla mbir yi moom kéemaane na lool te len li dama yaakaar ne kaay wér jaru ko xanaa sa rakk boo bokkal ndey sax boo ne ko kaay wér nangu wut a wér donc ko ba rek euh, feebar bi lañ doon daw waaye dañ fay fekk loo xam ne moo raw ah, wax dëgg yàlla day feebar bi ñun de léegi léegi mu def at waaye dañ koy dégg rek waaye gisuñu ko man déggawuma ko wax dëgg yàlla ku dee ku nekk ak sa bàmmeel mais man sama ngëm-ngëm feebar bi bokk ci wax sëñ Fall gëmuma ko de waaw ñoom nag ñoo teg seen i pexe nag ne feebar a fi am waaye nag comme loolu la ñuy tegit munuñ ci dara nañ muñ rek waaw. am nga liggéey bi daanaka ngoon lay doon léegi su fekkee ne dem nga ba ba ba ngoon gi jot heure bi nga xam ne fi la liggéey bi waroon dox ñu ne la tëjal day métti day métti ci marché bi surtout ñu nekk ci marché boo xam ne da ngay 17 heures ñu ne la tëjal tëj leen seen yéen moo tax xaw naa métti moom yàq na lu bari moom ci liggéey wax dëgg yàlla. comme man li ma yàqal mooy li ma daan am par jour day wàññeeku parce que temps yi ma daan liggéey waxtu yi ma daan am ci liggéey day wàññeeku looloo tax boo doon boo doon wàcc 18 heures da ngay obligé wàcc 17 heures wàññi wàññi sa temps ngir mën a mën a njëkkanteeg waxtu bi quoi. loolu la quoi comme wàññeeku nan nga koy njaboot gi. rek nag métti lool métti comme ni ko ñëpp di yëpp moom daanaka benn kii bi lañ quoi ñooy yem ni ñu koy dundee loolu la quoi couvre-feu mhm. moom moom métti na méttiwul surtout maa ñun ñi nga xam ne élèves yi yaa ma gën a xam euh, xamaguñu ba xam année bi dinañ ko yeggali bu baax wala duñ ko yeggali ba pare même tamit bu ñu arrêté waatee encore jàng bi tamit mooy loolu benn côté dina sonn dinañ dina métti ñun ndaxte bu boobaa même bu ñu reprendre waatee école euh, comment je dirais suñ ko reprendre waatee bu ñu defee examen ñenn ñi mën nañu am ñenn ñi mënuñu am ba pare ñi mën a am sax doonte dem nañ euh, classe supérieure niveau bi tamit foofu tamit du baax. aussi tamit suñ sañoon tamit Macky Sall tamit gën ñoo jàppale daal taxawuñu ñun tamit fii moom mais maire bi fi nekk moom moom xamuñu maire la xamuñu lan la. métti na trop ndax daanaka soo soo xëyee sa parents yi tamit dañuy xëy fajar di daw pour uti seen utal seen doom yi lu ñu lekk du genre ba pare ñi nga xam ne dañoo nekk si école privée yi seen parents yi war leen a fayal te liggéey bu bu mënul dox rek dara du baax tamit mhm, sonn nañ trop moom suñ sañoon tamit na moom bu gën see jàpp rek. couvre-feu bi. couvre-feu bi maanaam Sénégal ci boppam la yàqal parce que couvre bi dañ daan liggéey ba ay vingt vingt heures ba timis mais léegi loolu doo ko mën parce que ñi li ñibbi fu so rek ñooñ la ñuy sóoraale quoi fi mu bu dix bu dix huit heures jotee rek wala dix sept dañuy profité yenn liggéey ñu bàyyi ko fi pour mën a bàyyi ba suba quoi mais bu ñu yokkoon heure bi dina gën a baax parce ñun sax. maanaam mënuñoo yàqal mënuñoo yàqal lu bëri en 100 pour cent sax mais pour client yi nga xam ne dañuy war a jóge fu sori di ñëw dañuy sóoraale heure bi tey jii bu ñu fa war a jógee 17 heures sóoraale na 20 21 heures mën na leen a fekk fii bu boobaa dañuy obligé xaar ba deme loolu moo tax quoi. ku na ne bu liggéey bi wàññeekoo kom bi wàññeeku na naka nga koy dundee ak njaboot gi. nan lañ koy dundee ak njaboot gi xanaa metti rek muy muy muy metti ñuy muñ rek comme réew mi comme ni koy waxee rek corona bi moom yaakaar naa ni bàyyiwul kenn secteur yëpp la laal secteur yëpp la laal mais nag bu ñu ñëwee rayante lu ñu am rek yóbbu jox ko njaboot gi waaw metti na nag moom mais dañuy mën rek xanaa di wax président Macky Sall mu gestu ñi nga xam ne ñooy artisans yi parce que ñun artisans yi ñun ñoo yore li nga xam ne moom mooy réew mi artisan sans artisan yaakaar naa ni réew mi du dem kon yaakaar naa ni war nañoo gestu ñun parce que couvre-feu boo gisee corona bi eh, secteur yëpp yaakaar naa kenn ku ci nekk jox nañ la sa wàll ci li nga xam ne moom la moom la nguur gi doon seddale mais ñun ba tey jotuñu dara dañuy dem ak suñuy propre moyen rek mais daanaka sax mënuñu ko def. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi ñoo ko déggandoo président yaa dégg nag askan wi li nga xam ne rek euh, ñu ngi ko ñu ngi la koy ñaan fi mu toll nii ñu leen di fàttali nag ñu ngi nekkoon fii ci euh, banlieue bu Dakar. ci noonu nag ñuy yokk rek di leen di ñaax ngeen di takk masque yi te rek di fonk mesure barrière yi ngir rek wàññi li nga xam ne nag moo di feebar bi fii ndax coow li coow li lépp lépp moom la voilà chers téléspectateurs di leen jox dig daje rek beneen yoon.